jóg ni yàllay sa buur doo sàkku nga raamam yooneen sa soppe yooyu yëpp dañu koy proposé fan la ko xale bu jigéen bi gisee ñun suñuy maam ñuy lu ne te gis nga olof day wax ne lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër du kër du fa gaaw a jóge tey loolu la ñuy dund suñu biir kër réseaux sociaux yi tàqale na njaboot gi te bàyyi wuñ ci xel tey da ngay taseet nit di ko nuyu tal la ma nga takk casque ma ngay wax ma ngay xaqataay la muy wax ëpp na ko doole ba boo ko doon nuyu du ko dégg xam nuyoo du farata mais fay gi farata la tey ngay dugg ci kër kër goo xam ne papa daa waroon a toog di léebal njaboot gi di leen fàttali di leen jàngal yaay di wax doom di xool ci moom di jàng xool ni yaay di jëflanteeg bàyyi mu ciy bàyyi xel tey kër yi amatul loolu tey kër goo dugg ku nekk mi ngi concentré wu ci portable léeg-léeg nga dugg ci kër nuyoo kenn du la fay ndax kii moom moo tax ndax ku ci nekk lam ci soxla la cay jël concentré wu tasaare nañ njaboot gi ba amatul booloo amatul mbooloo amatul toog waxtaan amul amatul communication tubaab bi indil na la ne la am na loo xam ne jox naa la ko mu nekk sa itte waxal ak moom mais bul waxateeg yaay bul waxateeg baay bul déggatu bàjjan tey kii mooy sa yaay mooy sa maam mooy sa bàjjan tey kii daal ci la wékk sa ay mbir tey loolu yëpp dañ koy dund mu nekk lu doy waar mais nee am na gaañ yoo xam ne ñii lu muy xew xew xew ñoom dañoo fase àdduna ba duñ ci dugg ndax xam nañ ni fu muy jëm ak ñoom du neex mu ne moo tax nag bi ñu xoolee ba xam ne amul benn njëriñ am na ci loo xam ne lor ga moom moo ëpp li muy defar mu ne dañ koo teg fële na daal jël joow goo xam ne joow goo xam ne moo baax ci ñoom baax ci seen diine baax ci seen réew di leen defar ci biir muy seen xol di leen defar ci biir muy seen ruux di defar seen jëmm ba nekk ay nit yu sell yoo xam ni boo amee soxla mun leen ko diis wax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa boo amee soxla boo koy diis na ko diis ku sell borom kanam bu leer boo xam ni lii fërati ci kanamam mooy nuurul iman kooku boo ko diisee sa soxla bu amee fajal la bu amul wax la lu neex loo xam ne dina tax di nga sa soxla la moo tax mu ne ñooñu dañoo xamoon ni bi ñu xoolee ba xam ni lii def leen di yàqal lu baree bari mu nag dañ koo teg xam ni àdduna itam danga fiy jaar rek jaar benn waykat dafa wax ni isa marra bi yawmun walam attaxis yadan walam astafid ilman fa ma zaaka min umri nee na bis bu romb te jànguma loo xam ne comme léegi nii ñëw na installé wu bokk ci ñun mais bokkal ci groupe boo xam ne daf lay jàngal bokk ñu ngi ciy xool na lay jëriñ bokk li gën a yéeme mooy dañuy def benn mbir daal ni ko amul 18 ans ci dugg léeg-léeg dañuy demandé xale bi xale bi du am 18 ans mais dafay wax ni am naa nangami at mën a dugg ci site boobu lan la fay fekk lan la cay gis lan la mën a yàq ci moom te way jur ci bàyyi xel lu tax bindkat ba ne bu ma romb te jànguma loo xam ne dina ma jëriñ ci sama àdduna nan laay def ba tabax sama réew ndax nag yàlla dafa wàccee doomu aadama fii ci kaw pour mu tabax ko de wastaamarakum fiiha àdduna nit moo koy tabax malaayika yi duñu wàcc di tabax ak lu ñuy sell lii nii ay nit ñoo ko defar réseaux sociaux ñoom ñoo ko xalaat Facebook gis ngeen wala woon nañ temps yee defal ko docu documentaire ki nga xam ne moo ko xalaat ni mu ko defee mu nekk loo xam ne lu yéeme la am nañu xam-xam mais ban façon xam-xam xam boo xam ne dafa yàq suñuy ndaw dugal leen ci yeneen i gaam te bàyyi ma ci am na xale bu amoon kersa lool kersaam dañ na ndax ñu ngi xool bi moo tax portable am daf koy codé ndax dugal loo xam ne bu wéetee moom kese moom koy xool fi mu porno tey ñaareel jeune boo xool portable am da ko tey fekk ay porno dem na yóbbu la ba ngay masturber yow nit nit la léeg-léeg nga xool loo xam ne mën a téye téye sa amuloo soxna amuloo borom kër nan ngay def loolu mun la yàqal lu baree baree bari te ci bàyyi xel moo tax mu ne ñoom bi ñu xamee ni yii amalu leen njëriñ dañ koo bàyyi mu ne nag jël li nga xam ne mooy lépp lu baax ñu jëm ko installé ci seen bopp sax ca lépp lu bon ñu moytu ko wan ko ginnaaw te xam ne amul leen benn njëriñ danger yi nga xam ni moom lañuy ñuy jeexale sa sahit bi ñu may liyaar li muy indi lépp ci gën a bëri bokk na ci ak odd lii maanaam réeral gi muy réeral nit ñi am na ñoo xam ne li ñuy wax du benn dëkk jël benn photo dugal ko jël benn image dugal ko envoyé fa nangami nit boo ko envoyé am nangam ay fen la ngeen baal ma du dëgg du dëgg am na koo xam ne da koy gëm a gëm a gëm ba bu ko def na ci journée bi yaakaar na moom am na problème envoyé ko boo ko envoyé fukki nit di nga am nangam du dëgg te léeg-léeg sax ñu jaarale ñu jaarale ci loo xam ne ñàkkoon koo xam sax moom mooy gën nga xam ko ndax léeg-léeg nga gis benn wax ku ñuy tuddee kilifa wax ko wax ko ci pénc ñu jël ko jaarale ko ci réseaux sociaux yi wallaahi boo ko dégloo da ngay bëgg a jooy ndax li muy yàq moo ëpp lu muy defar benn di mooy mooy dafay dofloo sax xale yi xale yi génn waar yëpp dof nañ xamul te li leen dofloo mooy réseaux sociaux yi xamatuñu fan la ñu teg seen tànk chaque jour ñu présenté leen lu bees bis bu ne ñu indi la benn application bu bees bis bu ne nga gis sa bët te bët ak a doy waar ci doomu aadama facteur bu doy waar la nopp ni noonu ngay dégg yoo xam ne du la jëriñ beneen bi danger la ak xatru lil atfal danger la ci xale yi te tey dugg nañ ci soobu nañ ci lu mel yàqal bari la beneen bi doon am sax temps pour mën a xalaat da lay tënk ko di xalaat bi nga doon am di xalaat di toog di xalaat xamoo yàlla dafa tagg ay gaay adressé leen ne ñoom ay xalaatkat lañu inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wan nahaari la ayatin li ulil albaab man humul ulul albaab allazina yaskuruuna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard rabbana maa xalaqta haza baatila subhanaka faqina azaban naar day dem ba dootoo xalaat ndax daf lay tënk jël sa temps tënk la amatoo looy xalaat beneen bi day tax dangay roy loolu gis rek koy roy lu ñëw rek nga yaakaar bu baax la dañ koy jël li ci gën a yéeme mooy xale yi xam nañ ci lépp loo xam ne seen i parents xamuñu ko beneen bi ak alxawas bi ñuy jeexale mooy daf leen dugal ci ay mbir yoo xam ne gis da ngay dem ba nekk ku vice la boo amee jabar sax doo ko man a gérer ndax jiitu na nga gis ay mbir yoo xam ne yaakaar nga ne boo amee jabar da ko war a appliquer yaakaar nga ne soo amee borom kër war nga ko appliquer te yëfu bàyyi na la yii yëpp réseaux sociaux bi daf koo indi tey ak feebar yi nga xam ne moom lay joxe ñu ngi nekk contact direct sa yaram léeg nga def sa portable vibreur dugal ko sa yaram li mën a yàq ci say organe ak a bari Sénégal ñëpp ko feebar te bokk na ci li leen feebar mooy contact direct ak téléphone yi nga xam ne tey dañu koo defar yombalal ñu ko mu lay yàq te bàyyiwuloo ci xel day yàq sa santé lu muy yàq dafa bari. defaroon nañu am na ay réseau yoo xam ne defaroon nañu ay njur yoo xam ne boo ko amee mun na laa bañ a dal dina sànni examen ñetti yi du la du la daal. mais est ce que ñëpp am doole loo xam ne ay 60 mille lay jar est ce que ñëpp mën nañu ko jënd alors Vera naa amoon na ko am na beneen kii ñu doon jaay ay añ. allo ragal coupé ñu ne déedéet di léegi nag nañ ko xeeb léegi nañ defar portable portable c' est pour porter la ñuy wax kenn ku nekk nekk ci kër war mais lan la lan moo tax ñu defar ko dafa nekk loo xam dafay yombal nit ñi seen jokkoo pour ñu mën a jokkoo mais est ce loolu lañ koy bay portable ñaata la yàq ci ay sëy portable ñaata la yàq ci ay diggante kuy jëw moom ba dugg ci whatsapp moom am nga problème jëw parce que yépp nañu whatsapp moo leen weer da ngay envoyé audio di xaste di wax nit ñu enregistré la nga jékki-jékki mu commencé di dem kii jot ko paas ko kee kee jot ko paas ko ngay rëccu fekk boobu rëccu wees la way jur yi nañu bàyyi xel xale yi seen jàng nan lañuy jàng ndax nag yahud yi ak nasaraan yi dañoo indi benn programme boo xam ni ñi nga xam ni ñoo koy jox xale yi ñoom ñoo leen tàggat seen taalibe la ñuy doon yëpp ci ñoom ñoo leen tàggat ñu nekk seen taalibe di jàngal ci école yi di leen jàngal loo xam ne dafa yàq seen jikko waaye lii ñëw li nga xam ne moom mooy réseau sociaux yi ñëw na gën ko yombal yombal na lu baree bari ci diine tey ñu bëree bëri jàng nañ seen diine ci li nga xam ne mooy réseau sociaux yi tey Oustaz Seydou Ly bi muy def ay waxtaan ci internet bi nga dugg gis sitam di ko defe naan loolu yàgg na mais tey dañ cee boole loo xam ne bokku ci te li ci bokkul mooy la ñu nëbboon te mu commencé di feeñ muy njaboot gi ñu ngi yàqu te portable yàq na leen réseaux sociaux yi yàq na leen te bàyyiwuñ ci xel sa sànq bi ñu koy wax léegi taxaw foto yu génn la mel surtout xale jigéen ñi da ngay jaaxle des fois da nga ciy gis sax ñi nga xam ne dañuy jéem a góor lu ci seen diine mm-hmm. ne la ngay fotow rosa saytuñ ba mu xonq guddal ko léeg-léeg nga génne làmmiñ léeg nga ne dangaa muuru fëcal photo léeg façon yoo xam ne da ngay jaaxle est que xam nga ne photo yooyu ëllëg yow man xiyaam dinañ la ko tegal sa kanam nga di ko xool est-ce que yaa ngi bàyyi xel loolu mën a wéet ci sa néeg am koy jëflanteel koo xam ni sa far la noonu la tudd léeg-léeg dem nañ ci bay jëflanteeg xale yi di sëy ci yoon wii nga xam ne moom mooy réseaux sociaux ci en distance loolu ñun ñëpp xam nañ ko na ngeen ñu baal am rapport en distance koo xam ne du sa borom kër takku la bu nekkee sa borom kër sax loolu dañ ci werante est ce que ak daganul wax ma la ba mu ko nekkul tey fii am na ci réseau yi boo xam dañ koy tuddee Sénégal pour nous pour le Sénégal da ngay jaaxle li lay jaaxal mooy ay sénégalaises lañ fay dugal te site bi nekkul fii ma nga bitim réew lañ fay dugal yow mënuloo koo sensibiliser léegi léeg nga gis ci waykatu arab yi koo xam ne dafay siiw lool dem ba mu yàgg mu bëgg a dellu ci diine bëgg ñu censurer yi nga xam ne moom la defoon da koy ay milliards dañ koy fayee ko pour ñu dindi ko waaye yow mi dëkk Sénégal nga xam ne boo taqalee añ reer daf lay jafe soo jéemee def tartiis ba ne góor gi moo xam ministre bi koy séqal moo xam kooku mën a séqal daf koy jàng nga jël sa bopp état la ko dugg ko ci dugal ko ci lii nga xam ne ku nekk mën na cee jot portable dafa yéeme réseaux sociaux yi dañoo doy waar nee naa nag man bi ma am te mu doy waar lool su ma yëgoon mu ko am WhatsApp da lay jëlal sa temps sa waxtu lay jël dafa mën a jël temps des dafa mën a yàqal nit ki lekk-lekk léegi dañoo waroon a xool yow léegi portable bi nga yor nga def analyse xool weer bi weer bi ñaata appel nga recevoir yenn ñoo ci am njëriñ lan nga ci jàng lan nga ci jàngale lan nga ci def lu ciy jëriñ sa réew lu ciy jëriñ sa bopp dafa analyse xool ba xam est-ce que di nga am du yomb pour nga am ko surtout léeg-léeg am na groupe yoo xam ni waxu caaxaan waxu kasaw-kasaw wax yoo xam ni amul benn solo nga di ko jaarale ci ay machine yoo xam ne ku nekk mën na cee jot nee nañ leen whatsapp moom am na muy nëbb bu mu ko jaarale ci whatsapp kër te borom kër saa yu ko neexee mu nekk mu génn la nekk ci biir kër loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax kër la kër la boo xam ni borom kër gi ko moom heure bu ko neexee la ca nekk mën na koo génne loolu moom na ko ñëpp suuraale moo tax ñoom xam ngeen ni dañoo jëw ñëw mu yahudi ak nasaraan yi ñenn ci ñoom ñoom dañoo ñëw rek pour yàq pas-pasu xale yi orienté leen ci leneen li ñu leen mooy orienté muy seen bopp na ñoom ñoo xew nan nga xewe def nga ci portable commencé ngaa dugg ci mbir yooyu xam xamuloo noo koy utiliser mais nga commencé ngaa génn koo xam ne sa yaay xamul sa papa xamul yéen a ngi waxtaan yéen a ngi jëflante dafa am benn wayjur boo xam ne li ko sababu faatoo fi mu jëlee feebar bi nga xam ne moo ko faat muy doomam bu am 12 nekk te am na benn tubaab bu muy jëflanteel mu nekk ameem muy jëflanteeg moom jaar la ko par internet léeg-léeg tubaab bi suñeeku loo di ko def loolu doy waar keroog bi mu ubbee machine am ba gis ko ñu dañ koo tas ci la daanu am cardiaque foofu la jógee feebar bi nga xam ne moo ko yóbbu mu wuy ji boromam. musul xalaat ni doomam dugg na ci circuit boobu nee naa la léeg-léeg nga gis koo xam ne néegam lay dugg te portable am filmer boppam ndax nee na ki mu am far bi mu am moo soxla loolu ci moom ndax xaalis xale jigéen ñi dañoo bëgg xaalis fekk na loolu noonu mooy posen bi nga xam ne moom moo koy yàqal àddunaam te du ci démb ni nga doon gëmee borom bi subhanahu wa taala gëm yonent bi sallallahu alayhi wa ñu lay jàngal en tant que nit sa pas-pas ni nga koy defare léeg-léeg dañ koy yàq te doo ci bàyyi xel dañ koy yàq te doo ci bàyyi xel bi gën a métti nag ko doy waar mooy li ci xew ñun ñëpp ñu gis ko di ci dugal ay kàddu yoo xam ni bu njëkk ba da nga ko doon dégg rek naan est ce que lii am na mais amul woon sax suñu réew ay wax yu rëy ay wax yoo xam ni fen ay wax yoo xam ni te léeg-léeg sax ñu askanal ko borom bi subhanahu wa taala daf ciy am am na loo xam ne jamono yu njëkk yi ñun daawuñu ko dégg dem bay jël yàlla di ko tëkkale di ko teg ci place su nit li gën a métti nag mooy dañ la koy envoyé am na yoo xam ne buñ la ko envoyé na yem ci yow bul ko envoyé keneen mais loo jot rek boo jot rek yow tam ko mbalit dañ koy am tuur mbalit dañ koy am sànni am na loo xam ne bu ñëwee ci sa portable bul ko jox keneen li mu yàq ñu ko lu muy defar tey xale yu bëri li ñu meloon démb ci seen pas-pas ci seen wàllu aqida réseaux sociaux yi dindi na ko te bàyyi ci xel ndax daf koy def dégradation ndànk par ndànk da koy dindi ndànk par ndànk te doo bàyyi xel mu nekk loo xam ni dafa doy waar bi gën a yéeme te doy waar mooy xam ngeen ni adduniyaa adduniyaa saa ku nekk xam na ne àdduna moom yàlla def ko tënk ci ay heure moo tax bindkat bi ne faj'alha ta'a ad-dunya sa'a faj'alha ta'a nee na war nafsu tamaa awidha qanaa nee na gis nga àdduna bi ay heure la yoo xam ne moom la am tey ki faatu léeg-léeg dañuy def ne am na vingt 22 ans gis nga 22 ans yooyu mooy année yi mooy heure yi nga xam ne moom la dund ci kaw suuf kon nit ki dundam dëgg-dëgg mooy waxtu wi nga xam ne mu koy passé ci ci àdduna waxtu woowu nag lañ la njëkk a notee lañ la njëkk a naxee jël sa temps ñoom ñuy liggéey di avancé temps ak ni mu chéré nga xam ne ëllëg yoomal xiyaam ñii réccu li ñuy réccu mooy temps bi ñu amoon def ko ci leneen defuñu ko ci jaamu borom bi subhanahu wa taala ëllëg yoomal xiyaam même ñi dugg aljana dañuy réccu li ñuy réccu mooy benn temps bu ñu sàggane woon te jaamuwuñu seen borom ndax bi yàlla fayee kontaante gi nekk seen xel seen xol moo tax dañ doon wax ni ñoom li ñuy réccu mooy benn waxtu benn seconde boo xam ne dañoo toogoon te defaluñ ci seen borom dara nga xëy suba ba ngoon nekk ci sa jigéen yi surtout xale yi góor yi yi xam nga am na paa yoo xam ne li taluñu ko ñu ngi yor sax seen kurus di kocc kocc seen borom mais xale bu góor bi moom gel bi muy doxaan ñoom ñaari leen di jokkale mooy lii réseaux sociaux mooy tax ñoom ñaar ñu mën a jokkoo mooy tax ñoom ñaar ñu mën a waxtaan yan façon waxtaan mooy tax ñoom ñaar ñu mën a gisee ban façon gisee borom bi subhanahu wa taala fonk nit ci biir nit noonu mu am kum ci fonk ba di ko dénk moroomu nitam muy jigéen ne ko yow dangaa am ay valeur yu nekk ci yow waroo nekk benn marchandise boo xam ne dañ lay jaay démb danga doon judd ñu lay jaay sa xol du jeex ndax mënuloo ci dara mais tey en tant que yow jullit bi yaay jaay sa bopp te bàyyi ci xel tey bëri na xale bu jigéen bu nekk seen biir kër papaam ak yaayam yaakaar ne la ñuy xaar ci moom bu amee borom kër ma nga ca moom te fekk na dañ na bu yàgg te kii réseaux sociaux yi la ko jaare la ba mu dañ te bàyyi ci xel te seen góor bu sàggan mu lay wax waxal yi defal ma nii defal nàngam lii fotol yónnee ma defal lii yónnee ma mu di ci nekk li ci am plaisir ñoom ñaar ba ndawam sew sey ci yaramam mu nekk loo xam ni dafa yéeme scientifique yi trouvé nañu ne bànneex bu ëpp ci jànq boo xam ne lu sëgul sëy mun na dem ba nga xam ni dina sey ci yaramam ba bu amee borom kër loolu doon génn nekk sans mun naa tëju nañ ma baal mais pour mu génn loolu day fekk seeri ci biir yaram bi moom moo tax ndax plaisir moom moo tax mu sey ci kaw ci biir yaramam pour wax la ni tey ni ñu koy dundee ñun ni koy yëgee da gis sax am yaa ngi koy ni ñu yëgee réseaux sociaux baaxul bokkul nga xam ne ki ko defar loolu moo taxoon mu defar ko. moo tax xale yi su wax ngeen lay dina adressé parole bàyyi leen xel seen bopp il faut ngeen bàyyi seen bopp xam ni gis nga diine ji borom bi subhanahu wa taala daf koo protégé mais nag am na ñoo xam ni seen itte mooy ndawu jullit ñi mooy ñu génne leen ci li nga xam ne mooy seen ak seen mbaax ak seen ragal borom bi subhanahu wa taala ak xam seen bopp te ñoom fuñ ko mën a jaarale daf leen koy jaar yow nag xamuloo ci dara luñ la indil rek nga tàbbi ci luñ la indil application buñ la dugaloo sa portable nga nga bës bësal nga bës léeg-léeg nag ñu wax la da ngay def sa tur def sa date de naissance te fekk na sax léeg-léeg yow li ñu soxla ci yow mooy ay information sas jànke léeg-léeg am ñu la soxla yow mii fa ñuy jaar mooy ci réseaux sociaux ba xam bu fekkee da faa jot a dugal sa filiation da nga faa jot a dugal lenn loo xam ne say secret biir la mun nañ koo pirater dugg fa ba buñ la bëggee yàqal jaar fa yàqal na dañoo bay waar ni li muy li mu làq moom moo bari moo tax nit dafay yar ba kanam ci yi nga xam ne mooy xew léeg-léeg même bu xewee bul ci man xaw ma ay imo ay Instagram ay yooyu man xaw ma sax nan lañ koy dugalee application yi warta bi ma am sax su ma yëgoon du ma ko am ndax ma temps boo xam ne damay toog di regretté waa discussion bii lan la lan laa ciy jëlee lan la ma apporté tey sama journée lii ma doon wax après lan la dafa doy waar et pourtant nag imaam Ali karramallahu wajha dafa wax ay abyaat yoo xam ni ku nekk war na cee bàyyi xel inna lillahi ibadan futana xalaqa dunya wa xaaful fitana nazaru fiha fa lamma alimu annaha laysat li xayin sakana jaaluha lujjatan wattaxadu saalihal amali fiha sufna aleykum salaam nee na am na gaa ñoo xam ne système bi lu muy bari bari bari yu bees yi lu muy bari bari bari ñu leen di génne tey lu nekk ñu génneel la ko ñoom duñ ca soobu mukk na xam nañ seen bopp ndax bakkan bi nga ne moom la ñu feral feral ci li nga xam ne moom mooy iblis ba du ci am yoon ñoom bakkan boobu dañ koo jël jaay ko seen borom ne ñun daal système bi ñu fëkk duñu yóbbaale moo tax mu ne am na gaa ñoo xam ne ñoo feral seen bakkan bugguñu seen bakkan maam ba nga xam ne lii li muy yomb yomb di nekk loo xam ni wasila la boo xam ne mu nga caa am loo bëgg ñoom nag not nañ ci seen bakkan ba am na loo xam ne du leen ko jaar bi ñu xamee ni nag àdduna bis bu nekk ñiy xeex diine dañuy indi lu bees dañoo fase dañoo jël àdduna teg ko ni tege na ko doon ñu yàqal de ñun ay missionnaire lañ yow àdduna mission ngay dox nit ñi mu fiy nekkee heure jeex mu wuy ji boroomam ñun ñëpp ku nekk na jàpp ni àdduna noonu lay jeexe borom bi taxañ asamaan ak suuf taxawal jaam bu nekk réglé ko ku nekk li nga liggéey yoon bi doon leloo mu ne nag ñi nga xam ne xam na ni moomu islam fu nekk dina fa jaar sunuy ndaw ak sunuy ak suñu ay góor surtout xale yi jigéen yi façon bu nekk dinañ leen ko indil ba da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne ay waxam ni mu ko changé ci fii la ko am na koo xam ne moom lañ moom lañ lay présenté gis nga waa Raab ba seen xeex dafa yegg ci ne boo xoolee trois ans yu nekk dañuy préparé benn nit te jigéen lay nekk li gën a bari siiwal ko ndax am nañu alal même bu fekkee ci musique lay yëngu jaral na leen chaque quinze jours mu génnee kaset bu génnee ñoo koy jëndaat ñoom seen biir ñoo koy jëndaat ñoo koy investir ñoo koy imposer ñoo koy samp day mel ni benn nga gis naa nag jullit ñi di soobu ci ko def ko royukaay sax te duñ ci bàyyi xel Rihanna franc-maçon bu mag en tant que yow jullit bu jigéen nga def coiffure ñu ne la nan la tudd nga ne Rihanna laa ko tudd xamoo ki nga tudd sa coiffure moom mooy kat koo xam ne du référence koo xam ne du sa référence koo xam ne du sa royuwaay noonu la xam ngeen chaque année ay Madonna ni ki manège gis ngeen ko tey ci lañu xale jigéen yi def ay procès ange nga xam ne ndax nañ ay góor yu bëri góor yi dama leen a yërëm ndax da ngay tase jigéen gis ko jëmm ji nii physiquement nga yaakaar ne la ngay gis moo nekk ci moom fekk ay naxee kese la te suñu dina jàngaloon ñu ne yoon bi ne man rachana fa laysa minna képp koo xam ne daf ñuy tricher bokkul ci ñun xale bu jigéen bi tey ci réseaux sociaux yooyu nga gisee yooyu ci réseaux sociaux yi lay dugg fu nekk ndax lu nekk dañ gis nañu wan la fan lañ koy jaayee te ñu defee pose ongle yi nga xam ni day wane misaalu waa safara buñ leen di lakk ku nekk xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko yàlla rañaanee dumu demee ba cinquième asamaan fekk na fa ay nit yoo xam ne dañ leen a defal pose ongle yoo xam ne ci përëm lañ ko defare ñuy dagg seen bopp di lekkat muy jëwkat yi yow nga dem di dem di dem en tant que jigéen dem comme yàgg nga ne man mbay yi ma yàlla defal soxlaatu ma ñu indil la benn matière boo xam ne xamuloo luñ ko defee jël nga def ko ci say we mel ni segg mel ni gay lekk li gën a nag booy xew lañ la koy defal defal la ci ay per peinture ko kenn du xam looy nuroo nee na même xef yi nga am dafa ndaw utal yeneen xef nga def ko ci jokkalante xef yi ama jam lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko cooy jug leen dalal ko islaama ngi suux suux jug leen ni yàllay sa buur doo sàkku ngaramam yoneen sa soppe